alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaadalaat sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram waaye ñaanal sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na ko suñu borom may fan wu lool waa ànd ak yaram te defal ko mbooleem njabootug euh, sëriñ Moudou Mamoun defal ko mbooleem njabootug maam Cheikh Anta bokki téléspectateurs yi ñoo am mbégte di leen nuyu fii ci Daaru ci dëkk bi nga xam ne moom la Serigne Touba Xaadimu a sanc ci kaw suuf sanc ko ci atum 1884 muy dëkk bi nga xamante ne bi itam fi la njëkk a gërëmee nitu yàlla mu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 ba mu ko santaane inna salaata tanhi anil fahsaa'i wal munkari la ca teg asaka ma ca topp ko santaane tutahhiruhum wa tuzakkihim bihaa la ca teg woor koor na ko santaane la'allakum tattaquuna lañ ci wax aji baytullahi alxaram na mu ko santaane wa tazawwadu fa inna xayra saari taqwa wa la ca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 aljana de ku ko xeemeem te bëgg koo caa bëgg caa dem da ngay nangoo sonn ci di def la la fay yóbbu <laughs> sawara ku ko ragal nanga góor góorgóor lu baax la ci dawlu lépp lu fay tax a dem loolu nañ ko bàyyi xel bu baax sëñ bay daan wax ne képp koo xam ne bëgg nga sën njulli rafet na nga sàmm na sàmm saw làmmiñ ma bul ci di wax wax ju ñaaw di ko jëm ci sa menn morom waaye na sàmm say cër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 li ñu wax nee na defe na ne lii imaam wax ci xutba bi. Serigne Cheikh wax ko. Serigne Cheikh Abdou toog nii. Serigne. Serigne Abou Mouhamed toog nii. di Serigne Modou Mamoun. di sunu jëwriñ ju mat jëwriñ. ku ciy teg ay wax la nga cay teg du bari xanaa delluwaat rek ci li Serigne Cheikh Abdou waxoon rek. Serigne Abou Mouhamed. di sunu wayjur. di sunu sëriñ di sunu Serigne. di sunum Serigne Modou Mamoun. di sunum Serigne Modou Mamoun. mi nee na mi ngi nuyu bokk yëpp. ñi jóge ci biir dëkk bi. ak ñi jóge ba Ngaay. ak ñi jóge ba Njaareem. ak ñi jóge faneen. nee na yéen ñëpp gis na leen. nee na ngeen romb jullikaay yi Serigne Touba yëpp. tànn Daaru Salaam gi. ngir barkeelu. ci barke bi Serigne tubaa defoon ci maam Cheikh ak bi mu defoon ci daaru salaam mu muy teraangay àdduna ak teraangay alaaxira sëriñ aboo nag nee na jataay bii mu toog jataay toogalu ko boppam toogalu ko boppam ñii la ko fi toogal nee ndax seeni maam kat seeni maam dañoo àndoon maam Cheikh ñuy liggéeyal Serigne Touba fii. ñuy liggéeyal Serigne Touba fii. ba Serigne jox dëkk bi maam Cheikh ba jox dëkk bi maam Cheikh Anta. boole ko ak lenn ci maam yi ñu fi toog. boole ko ak lenn ci maam yi toog. fi. di liggéeyal Serigne Touba. di liggéeyal Serigne jaamu boromam. di jaamu boromam. moo ngi fi nekk. moo ngi ñu fi ba Serigne Touba naw leen lool. kon nag kon nag. bu ñu demee ba maam Cheikh bu ñu demee ba maam Cheikh ab liggéeyam àgg. ñi ñi war a topp ci ginnaawam ñëpp. topp ci ginnaawam ñëpp. topp ci ginnaawam. rafetal liggéey boobee. ba ñëw toog. ba ñëw toog. sunu borom wàcce leen. sunu borom wàcce leen. kon nag sëriñ Abo mii. sunu borom yëkkati ko. boo xamee ne sunu borom yëkkati na ko. teg ko ci kaw lalub sëriñ Modou Mamoun. teg ko ci kaw lalub Serigne teg ko ci biir toolub Serigne Modou Mamoun. teg jox ko goppub sëriñ Modou Mamoun. jox ko liggéey rek lay man liggéey te ñun rek lay liggéeyal. kon nag. mi ngi digle. ngi digle.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 sunu borom moo leen mayoon rek. kon nag yàlla na ko sunu borom may lu ëpp lam mayoon ñooña. ba mu def fi loo xam ne. dana yéem ñëpp. nee mi ngi leen di jottali nuyoob Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa. ak njabootug Daaru Salaam gépp. moom nag. moom tëjut buntam guddi.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 Serigne Touba ko yaral moo ko yaral boppam. jàngal ko jàngal ko. won tibbal ko nag fa mu tibbale mag ña. kon nag Daaru gi dafa bari ay cër. cërub borom gaawaan doyoon na. waaye day mel ni. waaye day cërub Serigne Modou Mamoun. boo ko seetloo. doo xam fu mu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 kon nag loolu ñaan mu jëm kanam noo ngi ñaan mu jëm kanam ba bu ñuy joxe addiya ba bu ñuy joxe addiya nañ joxe lu ëpp lañ daan joxe lañ daan joxe lépp lu Sëriñ Tuubaa di liggéeylu lépp lu Sëriñ Tuubaa di liggéeylu nañ fexe ba man ca nañ fexe ba Sëriñ Abo mii fexe may ko ndam loo xam ne ñu may ko ndam loo xam ne taalibey Daaru Salaam ñoo ko koy may. taalibey Daaru Salaam ak Serigne Touba ndax am na pas-pas bi. am na ngëm gi. am na ngëm gi. am na takku gi. kon nag kon nag. nun ñii topp ci moom. nan laxasaayu. nan laxasaayu. allahu. dana weesu fa mag ña nekkoon. kon sëriñ baa ngi ñaanal mboolem ñi teew si. di xamal ne. fi ngeen jóge sori na. waaye fi ngeen jëm si. na ko. dëkk bu sëriñ Touba njëkk a sañc. njëkk fee jullee korite. njëkk fee julli ajjuma. jaamu fi yàlla jaamu yàlla gu toll ne ne gim fi jaamu. ñaan ko boromam ba mu may ko. ñaan ko borom it may ko ko. muy daaru salaam. muy daaru salaam. loo xam ne ñaanalu ko fenn. ko feneen. fu mu tuddee Touba rek. fu tudd na daaru salaam. wala sax mu tudd daaru salaam. wala te tuddul Touba. kon nag loolu. kon nag loolu. mënuñu koo fay. mënuñu lu joxe suñuy xol. te fas yéene laxasaayu ba bàkk wi nga xam ne moom la ñu sëñ Tuubaa bàkk ñu yeeyoo ko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 ñëpp ñi xam Sëñ Biir Maamun démb ak ñi xam nañ ko doon dégg ñëpp xam nañu Sëñ Biir Maamun a ñëwaat kon day mel ni fa mag ñi jaaroone fa la jaar waaye nag yokkaat ci loo xam ni ku ne xam nañ damaa mas dégg benn mag moo xam te rek ragal naan dëgg la mm-hmm. ne Sëñ Biir Maamun mas na ko xool ba ne ko mm-hmm. ah, aboo mi sama sama taalibe mm-hmm. ko si ko si Modou Mamoun la sa taalibe ci làmmiñu sëñ Modou Roxee mm. mu ne ma sëñ Abo laay xoolee sëñ Modou Mamoun kon jeex kon xam nga kon day mel taalibe taalibe boobu bàyyi bàyyi waxoon ko mu ci kanam ci ak kanamam mu dégg ko